Ndiaye Ngom ñu lay nuyu di la ziar nga yore communication Touba ca kanam tey ngeen di def euh, lancement euh, assenir tuba euh, bisub tey bi lan nga nu ci mën a leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi tànd ak wér di ñaanal sëriñ Abdou Lahat Abibu mu yàgg fii di ñaanal sëñ Abibu Imaam. sëñ Abibu mu sëñ Fallou ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm Euh, bis bi nag bis bu am solo la euh, dans l'histoire du mouridisme bis bu am solo la ci Sénégal parce que c'est la première fois Sénégal ñu gis benn kuréel une communauté di dajale seen i dërëm c'est un projet de deux millions de mourides ñu ne chaque mouride ñu ngi koy woo mu joxe mille francs par mois le mois ça fait 2 milliards l'année ça fait vingt quatre milliards ngir lan ngir ñu soxla Touba mais ku xool Touba di nga xam ne Touba weesu na sax ville parce que statistiques yi nga xam ne nii statistiques yi nga xam ne nit ñi def nañ ko état bi def na ko dañoo wax ni Touba mi ngi si huit cent mille habitants alors que en réalité lii nga xam ne moo ne biir Touba mat na un million huit cent mille personnes donc wàllu dëkkuwaay lépp ngi ci loolu moo tax ci kanam jël les choses en mais les choses en main mooy lan mooy dañoo bëgg. Touba nekk dëkk boo xam ne nii dem dem ba raw màkk ak mbir na si taar si loolee loolu mënul ànd ak ay mbënd loolu mënul ànd ak ay taataa moo tax bi ñu waxtaanee ba jot ndigalu sëñ mu taxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér mu boole ñoo ko sëñ Basiiru ñu waxtaan si ak boroom xam-xam yëpp ñu jël suñuy matuwaay boroom xam-xam yi sont les ingénieurs yi nekk di Touba ci kanam daal dox wër recenser tous les points yi nga xam nii mooy point yi nga xam ne nii bu dee lijjanti nañ ko ndox dooru taa biir Touba kon si loolu nañ sukkandiku ñu def benn lancement lancement bi mooy lan mooy dañoo woote ñu ne fu murit nekk si adduna bi woo nañ la ngir ñu saafara mbënd mbënd mii nga xam ne mooy am biir Touba ñu daal koy budgétiser si benn montant bu toll si trois cent cinquante millions bu ñu ko defee ñu woote. murid yi lu nekk joxe nañ ko murid yi lu nekk def nañ ko ngir lan ngir projet bi nga xam ne song nañ ko muy l'opération defar mbedd Touba ngir waajale ko màggal yi moo tax le huit bii tey ñu fas yéene def lancement officiel bi liggéey bi tàmbalee tey ñu fas ne fii ba màggal incha allah lépp loo xam ne point la un point bas ñu lijjanti ko. mel ni bi ngeen ko lancé ak léegi yàggul yan stratégie de communication ngeen def ba réussir yëf yi. waaw bi ñu ko lancé yàggul mais xam nga Touba ci kanam soo gisee ay mbiram nit ñi dañ cay songu mooy dafa nekk la transparence Touba ci kanam dafa nekk kuréel goo xam ne su wootee murid dañuy ñëw parce que dañ ko wóolu. parce que ñun sunu sunu sunu slogan mooy laat murit yi lu ñu mën waaye def ko fu ñu xam loo moro chaque fin du mois Touba Ca Kanam day def ce qu'on appelle bilan financier tas ko ci réseaux sociaux yi tas partout ñëpp xam ni Touba li Touba Ca Kanam li la dugal donc sous peu de temps dañoo lancer mbir mi murit yi sous peu de temps ñu matal xéewal gi ba démb gis ngeen lu xew 2STV Tahirou Sarr à lui seul il cent quatre-vingts millions sans compter les autres ñi joxe ay 10 millions ñi joxe ay 25 kilos de riz ñi joxe deux sacs de de de ciment xeebu ñu dara donc ñun lu ñu dañu sant murid yi waaye nag dañuy ñaanal sëñ Muntaxa. Euh, sëñ Abdoul Ahad Lo ñu ngi lay jaar ngay yore euh, lépp lu jëm ci étude ci wàllu projet bu am solo bi nga xam ne ni Touba ca kanam ñu ngi koy lancé ngir assainissement Touba jafe-jafe yi ci am jeex étude boobu lan nga ñu ci mën a expliquer. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi alxalifatul am li tarixati muridiya sëriñ Muntaxa Mbacke Bachiru di ñaan mu yàgg fi lool tu wér ak suñu kilifa sëriñ Abibu Mbacke mu euh, sëriñ Mouhamadou Fadilu ak euh, sëriñ Abdoulahat Abibu jëwriñam ak Abdou Fatah Gueye mi président Touba ci kanam ak mboolem waa Touba ci kanam yëpp muy bépp murit euh, ñu ngi ziare bu baax di rafetlu bis bi nga xamee Touba ci kanam taxawal na ko ngir lancer li ñuy wax. opération defar mbedd yi ndax bu nee assainissement sax xëy na assainissement mën naa rëy trop ndax assainissement mel na ne dafa nekk loo xam ne euh, lu gën a yaatu lay doon euh, li dafa am nag ñaari étude et euh, contrôle muy commission étude control bi nga xam ne yàlla def na ñu jiital ñu si dafa am trois sous commission sous commission expertise ak sous commission control technique ak sous commission Euh, étude de projet et planification léegi nag bu ko defee nag na xam ne mu nekk liggéey bu yaato yaat euh, na xam ne dañ cee woo bépp ingénieur commission étude et contrôle nga xam ne dafa am ñetti sous commission yu si nekk mu si commission expertise Sëñ Abdou Aziz Madialis jiite ko. ak sous commission contrôle technique ak sous commission planification étude projet sëñ Kosoloo maam Thierno Lo jiite ko. nga xam ne ñetti sous commission yooyu dañoo woote képp kuy ingénieur wala képp koo xam ne sa xel màcc na ci dara ngay am burit nga ñëw dugg ci pour ñu ànd liggéey bi. ci loolu nag ci la ñu taxawalee ba ne kon dañuy def benn solution d'urgence solution d'urgence boobu mooy nan la ñuy fexee ba fii ak màggal gi ñu dindi taataa yi defaraat mbedd Touba mën a libre ci ndox mi bu ko defee nag ñu teg nag benn comité boo xam ne comité boobu day continuer di liggéey ànd ko ak Ageroute ak démembrement ak état yi na xam ne yëpp dañuy liggéey ci wàllu assainissement pour que ñu mën a def benn solution durable loolu nag ñu ngi ci comité boobu di ci woo bépp ingénieur. kon euh, assainissement Touba fekk ngeen ko ci niveau bu difficile niveau bu jafe fan ngeen ko fas yéene yóbbu incha allah. waa fi ñu ko fas yéene yóbbu mooy pour l'instant nii nii nii fi ñu taxaw nii mooy fii màggal ñu fexe ba libéré dëkk bi yëpp ci ndox defar taxaw ba nga xam ne nit ñi mën a ñëw màggal si. Touba benn ndox dootul taa fenn même fu ndox di taa sax te mënuñu koo yóbbu ci rigole bu mu jegee danañ wut ay pompe yoo xam ne bu bu tawee léegi ñu pompe ko léegi ba nga xam ne solution boobu mooy solution d'urgence bi waaye fi ñu ko bëgg a yóbbu nag mooy jéem a trouver nag benn solution définitive solution boo xam ne mooy assenir Touba gépp pavé ko tali ko ba nga xam ne mu mel ni nga xam ne noonu la ko borom ñaane woon suñu borom te ñëpp xam nañ ne ku tedd ki lépp lu mu ñaan suñu borom rek may nag ko laata mu koy ñaan kon foofu nag lañu jëm mooy buñ paree ci solution d'urgence bi ak comité assainissement bi ñuy taxawal war ko ànd ak démembrement état yi na xam yëpp dañuy yëngu ci loolu woo ci ingénieur bépp boo xam ne rek murit nga sa xel màcc ci wàllu assainissement muy eau usée eau pluviale eau portable muy tali muy lépp ñu àndandoo liggéey ba nga xam incha allah rabbil alamin ñu mën a résoudre problème yëpp. Ah, ñu ngi lay jaar soxna si présenté wu. Euh, Mame Niania Aidara présidente commission santé Touba ca kanam. Mhm. tey ji yéen a ngi lancé benn opération bu am solo assainir Touba ànd ci ak mbokki taalibe yi bu ñu waxee mbokki taalibe yi nag góor ñi la ak soxna yi ban taxawaay la ci soxna yi am ci euh, jëf ju am solo ji. ay cheikh bi laaj nga ma laaj bi am solo man dama naan Touba ca kanam moom jigéen ñi la pourquoi jigéen ñi la parce que Touba ca kanam xaalis la soxla collecte te collecte macha allah suñ borom daf ñoo dimbale si njiitu soxna Bintu Mbacke mu sëñ euh, Abdoulaye. Abibou moom mi nga xam ne kenn mënu ko ci collecte bi moom mooy présidente section féminine bi mais macha allah bu ñu yeboo ñu nekk 75 pour cent des collectes de Touba ca kanam jigéen ñi ñoo koy def kon jigéen ñi taxawaay bu am solo lañ ci def te ba tey ji tamit fii ñu toog nii rek nga xam ne ñun ñoo féetewoo collecte jigéen ñi rek macha allah liñ fi dajaleegum ci suba ak léegi takku na lool waaw kon jigéen ñi moom. da ngi wéyal bi euh, au niveau nga xam ni mooy euh, cérémonie bi tey boo doon euh, message ci yeneen soxna yi lan nga leen di wax ci liggéeyu Touba ci kanam rawatina liggéey bu am solo bi ñu tàmbali. macha allah assainissement bi yàlla dafa dogal xëj na euh, fi ko tënkoon muy 350 millions yi suñu borom yembal na ko waaye ñun ñu bëgg a jàll ci beneen phase nag ñu bëgg a jàll ñu bëgg a romb li nga xam ne ñun moom lañ bëggoon loolu ñu ngi ciy soxna yi comme niñ ci mënee ci ci bi mën ci yére yi mën ci tabaski yi mën ci lépp ñu ngi leen di woo ci assainissement bi te am nañ yaakaar tamit nag bàyyiwuñu association bàyyiwuñu marché yi bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di woowaat ñoom ñëpp rek te niñ ko daan defee